yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fanweereelu njàngale mi ak ñeent yaxya soob na yeesu ci ndox nanu bamtu nettali yi weesu benn kan la yonent yàlla yi wax ne dina jur ki yàlla dige ab jànq ñaar fan la yonent yàlla yi wax ne dina fu juddoo ci betleyem ci yude ñett kan moo yonent bi yàlla wàccee mu jiitu si ki mu dige yaxya ñeent yan firnde la yàlla joxe ngir wone ne yeesu mooy mu dige ay malaaka feeñu nañu maryaama yuusufa ak ay sàmm ca kër yàlla ga simeyon ak ana wax nañu ne yéesu mooy ki yàlla dige ñetti boroom xam-xam gis nañu biddiwu yéesu topp ko menn malaaka feeñu na leen itam mbind mu sell mi nee na ci yowanna saar benn ay ñaar fukk ak juróom ñeent ba fanweer ak ñeent ca ëllëg sa bi Yaxya gisee yéesu muy ñëw ci moom mu ne xool leen kii mooy mbotem yàlla mi ñu nar rey ngir dind bàkkaaru àddina moo taxoon ma wax ne am na kuy ñëw sama gannaaw waaye moo ma gën a màgg ndaxte nekk na laata may judd xamuma woon kooku kan la waroon doon waaye xamal ko ban Israyil moo tax mu ñëw di soob nit ñi ci ndox ci kaw loolu Yaxya seede na lii gis naa xelu yàlla mi ci melow pitax mu jóge asamaan tegu ci moom bi loola lata am xamuma mooy kan waaye yàlla mi ma yebal may soobee ci ndox ne woon na ma dinga gis xel mu sell mi wàcc tegu ci kaw nit kooku moo di ki leen di sóob ci xel mu sell mi yaxya teg ca ne gis naa loolu te seede naa ne moom moo di doomu yàlla ji bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yaxya soob na yeesu ci ndox nettali bi mu ngi aju ci bi yaxya soobee yeesu ci ndox yusufa ak maryaama dëkk nañu misira ab diir gannaaw ba erod deewee am malaaka feeñu waat yusufa malaaka mi ne yusufa mu dellu israyil moom ak waa këram noonu ñu dellu israyil dëkk ci nasaret ci galile loolu matal na waxu yonente bi ñu ne dinañu ko woowee waa nasaret bi yéesu mu ngi màggee ci kër ndeyam ak baayam ganaaw loolu maryaama amoon na yeneen doom ak yusufa yusufa liggéeykatu bant la woon bi yeesu amee fukki at ak ñaar mu ànd ak waa waajuram dem yerusalem ngir màggal bésu jéggi ba bi ñuy ñibbi ci yoon wi waajuru yéesu gisuñu ko noonu ñu dellu yerusalem seeti ko ñu fekk yeesu ci kër yàlla gi mu toog ca sëriñ sa ñépp woon ci xel mi mu am waa waajuram yi laaj ko lu tax àndul ñoom ñibbi yéesu tontu leen xanaa xamu leen ne dama war a nekk ci sama kër baay yéesu di màgg xelam di gën di mu def lépp li ko yàlla wax fàttaliku leen li yonent yàlla mal si waxoon waa Israël waxoon na leen ci mbirum kii jiitu ci almasi bi ngir yégle ñëwam kooku mooy Yaxya linjil wax na lii ci mbirum yaxya yàlla yónni woon na nit ku ñu naan yaxya kooku ñëw na doon ab seede ngir wax ci mbirum leer gi ñëw na ngir ñëpp dégg li mu wax te gëm moom ci boppam du woon leer gi waaye ñëw na ngir seede leer gi kàddu googu mooy leer gu wóor gi ñëw ci àddina te di leeral nit ku nekk ci jamono jooju yaxya mu ngi doon waare ci manding mi ci yude mu naan tuub leen seeni bàkkaar nguuru yàllaa ngi ñëw karawu gileem la yaxya defoon mbubu njéeréer ak lem la doon dunde yaxya waare na ne nit ñi bàkkaarkat lañu te yàlla bëggul bàkkaar te dina ko atte mu ne nit ñi war nañu tub seeni bàkkaar te jéggalu muy sóob ci dex gi ñu tub seeni bàkkaar sob nañu leen ci ndox ngir wane ne tub nañu seeni bàkkaar nit ñu bare dem ci wetu dex gi ngir déglu ko te tub seeni bàkkaar mu sob leen ci dex gi waaye ñu ëpp ci sëriñ ya gëmuñu woon Yaxya nit ñi di laaj Yaxya ndax yaay almasi bi yaxya ne déedéet man maa di baat bi yégle ci manding mi ne xaale leen yoonu borom bi yaxya ne itam maa ngi leen di sóob ci ndox waaye moom dina leen sóob ci xel mu sell mi benn bés yéesu dem ci yaxya ngir mu sóob ko di ko yaxya di sóob xel mu sell mi wàcc ci yéesu ci meloppi tax yàlla addu ca asamaan ne yaa sama doom ji ma bëgg ci yow laa amee banneex ganaaw loolu yaxya gis yeesu yaxya ne xool leen kii mooy mbotem yàlla mi ñu nar ngir dindi bàkkaaru àddina moo taxoon ma wax ne am na kuy ñëw sama gannaaw waaye moo ma gën a màgg ndaxte nekk na laata may judd fii la nettali bi yam am naa ay laaj benn fan la yusufa yóbbu waa këram gannaaw bi ñu delloo israyil nasaret lañu dem ci diiwaanu galile ñaar bi yeesu réeree waa këram ci yerusalem fan lañu ko fekk ñu ngi ko fekk ca kër yàlla ga muy waxtaan ak sëriñ ya ñett lan la leen yéesu wax ne moo tax mu toog foofu yéesu nee na leen xanaa xamu leen ne dama war a nekk ci sama kër baay ñeent lan la ya jàngal nit ñi Yaxya wax na na nit ñi tuub te gëm musalkat biy ñëw juróom lan mooy bakkar bakkar mooy bañ a def li yàlla bëgg nga bañ koo def walla nga ñàkk koo xam juróom benn lan la tuub tekki tuub mooy rëccu say bakkaar te ñaan yàlla mu baal la mooy nangu ne bakkaarkat nga te yelloo nga yàlla àtte la te mënuloo def dara ba jot say bakkaar. juróom ñaar kan la yaxya doon yëgle ñëwam. Yesu Christ sët bi yàlla dige. juróom ñett lan la yaxya wax nit ñi ne noonu lay yéesu di soobe almasi bi dina soob nit ñi ci xel mu sell mi ak ci safara juróom-ñeent lu tax sëriñ bañ njàngaleem yaxya ndax seen rëy ak seeni xalaat yu bon yaakaaroon nañu ne am nañu pexey def lu neex yàlla fukk ndax sóob ci ndox mën na musal nit déedéet sóob ci ndox mënul musal nit nit ki dafa war a gëm yàlla ci biir xolam ngir mën a mucc soob ci ndox dafay wane ne nit ki tuub na te yàlla rek la gëm fukk benn lan moo xew bi Yaxya doon soob yéesu xel mu sell mi wàcc na ci Yeesu ci melo pitax yàlla waxe asamaan ne yaa di sama doom ji ma bëgg ci yow laa amee bànneex fukk ak ñaar lu ngeen yaakaar ne moom la Yaxya wax bi mu gisee yéesu te ne xool leen kii moy mbotem yàlla mi ñu nar a rey ngir dindi bàkkaaru àddina moo taxoon ma wax ne am na kuy ñëw sama gannaaw waaye moo ma gën a màgg ndaxte nekk na laata may judd ci kanam dinañu xami li mu wax yan melukaan yàlla ñoo feeñ ci nettali bi te naka lañu ci feeñe yàlla lu mu dige def ko yàlla yónni na yaxya ngir mu yëgle ñëwu sët bi mu dige yàlla yónni na sët bi mu dige muy ki yonent yi yëgle ñëwam gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla yónni am malaaka ngir mu wax yusufa mu ñibbi si israel bi fa jàmm dellu see yàlla bëggul bàkkaar yaxya jàngale na ne bépp doomu aadama bàkkaarkat la mu teg ci ne yàlla bëggul bakar te dina àtte bépp bàkkaar beneen yoon dinañ waxtaan ci biir seytaane di fiir yeesu